génn mu woote loo xam ni péncoo la amoon na sañ-sañu biñ ko référendum bi bi majorité sénégalais yi voté wii amoon na sañ-sañu mettre ko en œuvre te du ci tàggu kenn yoon may na ko ko waaye dafa ni naa woote waxtaan ndax su fekkee man lañu fal tamit sénégalais bu di am nga part de responsabilité war a mu ñëw jàpp ci réew mi ñu waxtaanee li nga xam ni gis nañ ni suñ ko doxalee réew mi jëm kanam xëy na moom xalaatam su ko booleeg yeneen xalaat dina gis lu gën xalaatam mu woote mais ci kaw woote boobu dafa woote ci wo anam bi nga xam ni moom la yoon wootee dañ ni nañu woo sëriñ si woo parti politique yi woo société civile woo syndicat yi ñoo ñëpp bi ñu dajee nag dégg na fa lu ko neex dégg na fa lu ko naqari waaye loolu moom mooy sababu waxtaan kenn ku ne day indi xelam ak xalaatam te it ñi nit ñi di wax convoqué nañ ñu xamuñu contenu bi contenu bi leer na ci carte yi ñu yónnee dafa ni nañuy waxtaan ci fukki poñ ak juróom yi ñu génn ci référendum bi ak yeneen kon lu jëm ci wàllu éducation lu jëm ci wàllu santé yooyu yëpp ak lu jëm ci wàllu diggante euh, lu jëm ci économie loolu moo fa indi woon patronat bi donc loolu lañu la tënkoon ci waxtaan wi yaakaar nañ ni nag la fay juddoo dina nekk njariñu Sénégal dina njariñu nekk ñun ñi dëkkee ci réew mi ñu gis ni sunu dëkkandoo bii Idrissa Seck nga xam ni mos ta fekkee départu dara ci àdduna ci luy doxal Sénégal mosu ce fekkee benn départ chaque jour day dabe te su dabee day am problème mu intégré wuyu jiwul non seulement wuyu jiwul dafa waroon a respecter esprit ñi wuyu ji mu ni ñi wuyu ji dil moo leen fa yóbbu ñu xalaat ni ñun niñ ko waxee léegi ci texte bi en français ba muy compaloog Ablaye Wade di ñëw seen bis ba muy signé protocole de Rebeuss te ancien premier sulay Souleymane na Ndiaye toog ci télé TFM ni 2007 moom moo financé campagne Ablaye Wade te 2007 xamoon nañ ni ñun ñu ngi woon fii di rayantee sa Seck di dàqanteeg policiers yi ci mbedd mi boobu ñuy jaay sunu bakkan ñun ak sunu ngor di ko défendre boobu ndekete signé na ay accord ba financé campagne Ablaye Wade ci lu toll ci 7 milliards loolu weesuwut jiiñ nañ ko fi 74 milliards yoo xam ni banaliser na réponse yi waxu ci lu leer jiñoon nañ ko fi wor tariixa si Ahmad Tidiane Chérif bi nga xam ni ci la juddu ni ab murid la daw presse bi pendant presque korité tëbaski ndaw ndax daw question yooyu ndax loo ko jam te muy dëgg dina ko banaliser ba du ci indi tontu bu leer kon dil moom moo ko xam dil kenn du ko def ci am pénc kenn du woo lu mat deux cent personnes ci saal xalif général des Tidiane yónnee fa ndawam sëñ Sidi Mokhtar yónnee fa doomam Tiwaawan yónnee fa doomam église bi yónnee fa ñàkk a ak wormaal Sénégal nga taxaw ni ñooñu dañuy def diil moom nag li mu sentir mooy dialogue politique bi dafa am politique am lu jëm ci santé am lu jëm ci njàng am lu jëm am am am am am ñun liñ ci intéressé les politiques comme ñoo ci gën a réew mi ñoo ci ëpp làmmiñ ñoo ci ëpp luñ ciy wax te ñoo ci gën a néew moo tax lu ñu dugg la ca gën a am njariñ sax dañ koy suul ndax président ci biir waxam wax na ni day tegaat beneen programme bu ñuy tuddee piment programme boo xam ne ville yi nekk ci frontières yi dëkk yi nekk ci frontières yi nga xam ne depuis 60 dañ leen a fàtte amuñu case de santé amuñu centre de santé amuñu amuñu ndox mu sell amuñu courant amuñu bërëbu fajukaay amuñu piste de production amuñu dara président ci biir wa discours am wax na ni dañuy dégager beneen moyen pour dugg ci loolu loolu yëpp déggoo benn politicien boo xam ni. loolu nga xam ne ni mu sentimentale ni mu amee njariñ kenn débatru ci donc loolu moo taxoon ñu woote daje yi di leeralaat di rappeler sa Seck na dabe réew mi ku ko bëgg ku ko bëgg a ëllëg da ngay nangoo diisoo da ngay am kilifa moom nag ñàkk kilifa moo ko moo ko moo ko delloo ginnaaw te sëñ Moussa dafa wax ni am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba max nit day am kilifa ñu ngi koy ñaan mu delloo si xelam accepter li yàlla dogal ci président de la république ndax moom dafa mënta jàkkaarloo ak Macky Sall mu toog fi mu toog moom mu moom mu toog ci groupe gi Macky Sall di wax ak moom loolu la mënta accepter ci xolam loolu nag lu yàgg la du tey waaye na xam ni yàlla mooy jox nguur ku ko neex te Macky Sall la ko jox fii ba 2019 loolu da ko war a accepter beneen bi ci des ñu nekk ci parti politique boo xam ni fii ñu nekk Thiès dañoo nekk ci opposition ñu ngi góor góorgóorlu naam élection bu ñëw gañee guñu waaye suñu suñu amoon fukk élection bu ñëwaat suñu kanam dinañu am ñaar fukk wala ñu am fanweer loolu nag au fur et à mesure ñuy dem progression la ñu gis que ni kon am na lu des li des loolu nag moom la ñu war a xool ñu gis que ni jamono jii. am na ay mouvement yu judd ci ndigalu président de la république bu ci mel ni receveur des impôts et domaines muy Pascal Babacar Pascal Ndione indi mouvement bu ñuy wax dollil Macky Sall président recevoir ko ni ko jàppale ma Thiès mu def démarche boo xam ne ñun bi ñu dalee politique ci parti beeg léegi nit créé na fi mouvement mu juddu tey dee tey moor ne mu def démarche boo xam ne gis nañ ni démarche fii su ko continuer wala keneen ku ñëw jaar ci tànk yi mu tànk dinañu indil dara ñu ni kon war nañu féliciter ko encourager ko dalal ko jéem ko bunge au nom de la COJER bokkuñu ci mouvement bi dugguñu ci mais daf ñoo woo waxtaan ak ñun mu rencontré ku mel ni docteur Augustin Tine rencontré honorable député abdu Mbow rencontrer docteur Ndiaye nekk ci perspective rencontrer omor Diop rencontrer les femmes rencontrer directeur général de la poste Pape Siré Dia rencontrer le ministre Thierno Sall ñun ñu nekk facilitateur yi nga xam ni mooy tax mu ñu rencontrer ñooñu mu rencontrer délégation COJER waxtaan ak ñun war a ñëw dugg ci parti bi créer benn mouvement jàppale mouvance présidentielle nit ki su defee démarche yooyu ba pare ni du tànk ci ndaali di sottiwaat ci ndaali xam nga loolu moo ñu moo ñu indil problème APR da ngay gis koo xam ni day dem jëli militant wu Augustin Tine indi ko ci Thierno Sall jëlee ci Thierno Sall yóbbu ci docteur Ndiaye jóge ci docteur Ndiaye yóbbu ci Siré Dia loolu nax suñu bopp la au tour du pot la Pascal ni moom ku bokk APR du la jaay carte te su xamee ni APR nga day retirer carte am kon day dem ci ñi nga xam ni bokkaguñu mu ñëw indi leen donc démarche boobu la ñu saluer te gis nañu ñeneen ñoo xam ni ñëw nañu rencontré wuñu femmes yi rencontré wuñu jeunes yi intégré wuñu responsable yi nga xam ni ñoo fi nekk def meeting meeting bi gis nañ li ci xew am ñu jóge dakaar ñëw contrôlé wuñ situation dëkk bi wax fi ay toj-toj ku ci mel ni Mbaye Ndiaye bu parcelle ñëw ni Augustin yaa ngi soog a am jigéen ñu am taxawaay mais jigéen ñi fi nekkoon boobu ba tey di sonn ñu mel ni Mariam Diop Silla Ndeye Soukay Guèye Seynabou Ndione Awa Doucouré ñooñu kon ñoom liñ seen coono bi ñu doon sonn jariñu ñu dara donc loolu aussi su ko nit dugg see def démarche boobu keneen dugg si def beneen démarche bu wuuteeg boobu dinañu xalaat bi saluer bi tey woo ñooñu ñu ñëw ci démarche bu baax boobu loolu lañu ñu waxoon en résumé moom la ñuy tënk ci point de presse bi waxtaan ci ak yéen diisoo ci ak yéen su fekkee nag li ñu wax dese naa leer su ñu amee ay question Cheikh a ngi fi maa ngi fi ñu tontu ci suñu paree ñu yëkkati jotaay bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm